Touré ak Soumare Diop. waaw waaw dañuy kon booy loo def nii. waaw yow nekk na pleine émission bi di taal sa kóol beeg yoon wala gars yi ngay dóose. iPhone non non iPhone. <laughs> gars yi ngay dóose kii iPhone iPhone 12 la tax gars yi lu tax gars yi <laughs> iPhone 12 ay milliards lay jar. par la suite nag dañu continuer ba léegi ci làmb ji mais instant bi saison bi. mën naa ubbeeku ah. entraînement yi ñaata séance par jour ngay def. non benn rek entraînement benn séance benn séance moom ngay def par jour. à lecture nga koy defee wala ci école yi nga koy defee wala. non maanaam musculation la ñuy def. musculation ngay def musculation lay def. benn séance par jour sama booy bee toog commencé ko contact. non commencé ko ma contact. Euh, kañ ngeen nar a commencé rassemblé wu pour musculation. waaw actuellement nii moom gars yi booloon nañu. ko. non ko defaguñ ko mais mbëri moom booloon nañu actuellement nii. ñu ngi entraîné lu metti sax wax yàlla. ok parce que ñun yàlla dafa natoo entraînement ñun xamuñu ko. Mhm. parce que équipe Bës Kosow. Mhm. nekkul équipe boo xam ne dafa tas déedéet. ñun ñëpp benn benn gox lañu bari na de. non benn gox lañu def ñun ñëpp. man moom bëgguma dugg ci ay détails. non benn gox lañu def am na gox yoo xam ne euh, ñuy wax à gauche ñenn ñi di wax à droite parce que instant bii mën nañu ne am na beneen équipe xam ne coow am na fa. Mhm. mais aussi école de Bës Kosow aussi coow am na fa diggante coach Pathé eh, staff bi sax mën naa ne. Mhm. Farouz d'une part. yaa may dégg ay xam nga rek kii moo nekk ci dëgg kii moo nekk ci tool genre yooyu man je n'aime pas entrer dans les détails. Mhm. man su ma la tànn ci carrière mbir mi laay waxtaan mais école bu Bosco Sow tànn am na coow. waaw école bu Bosco Sow am na coow mais coow bi daal yaakaar naa ne ñu ngi ciy waxtaan pour coow bañ ci am parce que. monsieur coow am na ba pare. non am na pare am na pare clash am na. surtout nag plus précisément diggante coach Pathé. Mhm. ak Ferouz. Mhm. clash am na. Mhm. yaa may dégg. mais de moom du fii kese. am na benn équipe boo xam ne am na coow. waaw dèjà waaw sama jur a ngi noonu. yaa may dégg mais yow ban position nga jël loolu a mooy juum wala. Ferouz moo juum wala. d'une part bu ma nee Pathé moo mais maanaam li ma bëgg a xamal ba xamal ba xamal lenn la. gis nga njiit. kenn ko jiital pare di ko fa xasal. nit kenn du ko jiital di ko fa xasal ça c'est clair. te man li ma gëm man. Hmm. mooy lenn. nit koo xam ne joxoo ko mu leer. joxoo ko mu naan. loo am sa kër nga yóbbu. comme ko woon yaakaar naa ne kooku. bu la yéenewul du topp si yow. te li ma wax sànq hmm. nee naa Pathé day weer day jot mu fay ko xaalisam. di ko def ci combat mbër. néew na ci entraîneur bu koy def. comme kooku bu def entraîneur waru def loolu du rôle entraîneur. waaw Pathé buy def loolu peut être ko yóbbee warul def loolu mbër mi moo war a bëree jël ne ko coach am. nee naa wax naa wax sànq sama biir wax. d' accord barki Serigne Touba muy man ak samay boobu léegi dafa naan ci la am. Pathé day bàyyi këram mën naa ni zéro la fi dugg wala bu fi duggee boo xamee sax huit heures la fi ñëwaat. ndax lan ndax sonn ci jàmbur ci ñoo xamante ni ku ci am sa kër ngay ma man def naa quatre combats lekk ci fukki dërëm bu dee ak sa bàmmeel fukki dërëm pare lekk ko ci. l'essentiel mooy na mbër daal combat yeneen i mbër noonu. moom daan moom moo ko soxal moo ko ñor. Ah, ah. moom da am ndam maanaam bul wane yaafus. des fois bu ñu bañu sax ku daanu. des fois wane bëggul ku yaafus. des fois bu ñu mbërëm nga gis mu jàppante gaa yi. pour défendre mbërëm. dégg nga li ma la wax <laughs> moom deret bi deret la nekk. d'accord la. Ah, la da ngay madame bañkat la. entraînement yëpp lay yor ak Serigne Touba. ak sévère. ku su il est très méchant Bade il est très méchant waa ba ne mbër nga hmm. a métti. d'accord lamb da cee noonu la ko demee moom da cee jaar xam lu ci nekk. tey li ñuy force ñu koy entraîné noonu tey suñu njariñ la ñun ku ci am ba ku dem États-Unis boobu nga koy gëj a woo boo amee sa kër ngay yóbbu ba nga tabax sa kër parce que ñun gis nañ ko fi gisee nañ ko fi comme moom mu ñuy gunge ñun war nañ ko mën a jox cër boo xamante ni moom yelloo na ko comme ba amaguñ xaalis ñu ko jox na mais nañ ko jox cër ba mu ma sëkk des fois lu ma wax lu ma gis la lu ma mu fanaan mbapat ak booy parce que man gis ko am am géejuwaay. Mhm. Euh, euh, terrain kii waay euh, stade Amadou Barry terrain basket. waaw des fois ay nit ñi une heure du matin pare dafa daan nekk nekk booy. Mhm. yaa ngi may dégg. Mhm. mën naa ne ci mbapat yi. ci lañ xamante bala muy yóbbu booy ci arène bi. arène bi des fois da ngay gis mu raag raag mu métti pour lan défendre mbërëm. yaa ngi may dégg boo mën a kooku tamit mën na am combat mu yëkkati xaalisam dugal ko ci amul loolu beneen affaire la. man man dama ne jaaduwul man dama ne mbër mi moo war a am combat. ni manager di daggee 10 pour entraîneur mérité entraîneur mérité na 20 pour mm-hmm. man man pour man. bu manager amé 10 pour mm-hmm. entraîneur mérité na 20 pour tax euh nga lu tax. Mm-hmm. Euh, bu yeewoo heure bi nga xamné ne nit ñi ngi liggéey mom bu bàyyi léppam dem taxaw booy entraînement. yaa may dégg jour combat samedi wala dimanche toujours coach bi mo ñëw and ak mbër ah, kon na kooku bu manager amé 10 mom cent na 20 mais boo boo mënee tamit suñu yëkkati tamit xaalisam. ah ah di ko def di ko ci def. ah ah. di ko ci def te en plus tamit mm. seen naa. bari dafa nekk ci risque. risque bi mu nekk maanaam mooy wallaahi si écurie bës ko soo ni mu toll am na dirigeant yu bari de mais moom ak Lamine Ndiaye seul laa ci gis maanaam écurie bi li ci nekk ay mbër dafa bari bu matul cent jege na cent mais imaginer fu am combat sa dëkk parce que dëkk woon na mel de mais day jóg ànd ak yow ba sa biir dëkk jël ay engagement ci dëkk jàmm loolu chaque jour ma koy wax imaginer risque yooyu noonu di koy ko ko mën a fekk comprends pas comme loolu yombul est-ce que lu trois jours def ko ci àll. dama ne est ce moom moo tooñ Farouz est ce que tamit moom laa ñu war tey mu tànn Farouz ne ko booy. Mm-hmm. waxtaan ak moom. Mm-hmm. waxtaan ak moom sama mm-hmm. xam nga tamit may ma tuuti. xam nga xam nga tamit nit ki. doo bay sa tool ba mu waaw. ba mu naat. dem ba de desul du dul ñëw jariñu. mais saaga ne ba keneen ñëw jariñoo ko. yaa ngi may dégg. Mm-hmm. faru koo xaw école de Bosco Sow ko xamee. Mm-hmm. ba muy bëri premier combat ba muy def ay exploit. Mm-hmm. Bosco Sow ko xamee. ku ne Bosco Sow coach principal bi Pathé la. léegi est ce que a saagal ñu dem ba toll ci benn niveau bi. clash di euh, ma xamal leen. ndox du bàyyi yoonam. jaaduwul ndox du bàyyi yoonam parce que ah man Mourou de fëgal laa te man sama bopp su ma doon def lii di daal. dem ba ma koy def. may def nekk naka neneen ñoo xam ne bokk ci. Mhm. di daanu. Mhm. kon damay tourné mel na ma mën a. waaw ñu nga di nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyi dañ gis. noonu la fa demee. am na ni daal am na ñoo xamante ni mhm. coow jublu leen. waaw te rawatina li ma wax sànq rek koo xam ni moom mooy pet ci yow. comme maanaam ba li ma wax comme ak moom. wax ni nga bëgg Cheikh Ndiou bàyyi ma la man la yow moom yow moom Paare sa papa la. yow moom non maanaam boo déggee ma loolu. waaw boo déggee ma wax loolu. Mm-hmm. barki Serigne Touba nekkul dara tax may wax. yaa ngi dégg bàyyi ma la Fodou sama grand la. voilà sama grand frère bu baax la. voilà Serigne Bamba mais maanaam gis nga Paare mm-hmm. xol bi dara newu ci. xaw ma sama waay la wallaay si man dama lay gis des fois mu def lu yoon ma ne ko grand eh mu ne ma dafa lu dafa lu yoon. non man moom sama waay la moo tax ma seen posaani ay classe. dëgg la waaw parce que sëñ Bamba naxarul waxal. naxarul wax parce que man pare sama papa la de mais teewul tamit wallaay si dama koy wax dëgg bu jotee parce que yaakaar naa loolu mooy am. comprendre nga. loolu mooy am daal man loolu laa gëm. Euh, par la suite euh, dama naan rek rakk ji. waaw loo doon ci Modou. Modou. Modou Lo. rakam laa léppam laa de. ah rakam la. waaw da nga bokk ci stade. waaw bokk naa ci. ok eh, wóolu nga ko. kii. Ah. loolu géej wóolu nga ko ci làmb ci en tant que mbër. non loolu géej am na ndox. ok loolu ça veut dire géej gi am na ndox. waaw kon ça veut dire que ni wóolu nga sa mbër à 100 pour cent. 100 pour cent euh, fan ngeen jëm instant bi. ñun ah, fan ngeen jëm. ah fi gars yi nekk rek. fan fan la gars yi nekk. ci kaw ci kaw mooy fan. ah couronne bi couronne bi lañ soxla de ñun affaire bu 4 combats yéen lijjantiwu leen 4 combats 4 li leen tax a mooy la couronne nekk roi des arènes Modou Feugueleu le roi des arènes hmm. loolu mooy objectif bi loolu mooy objectif waaw instant bi nag kan moo taxaw ci kanam kan moo war a mën a ñëw jël avance instant yi ah. booy dañ koy daw kan ban booy ma koy daw mais sànq ci kan ah yow xam nga gars yi ñu seetlu la sa biir kër mun nga wax lu la neex. mais bu dee bu desee lu dul jël rek jël. dañ ko laal wala des fois nga wéet ni yow kese ni. non dégg nga mën a xalaat ah. fan laa koy jaar gauche droite affaire yi xaw na demee nag booy bi bu ko si jël. mais mais yow mais yow yow soxla na ko instant bi kan nga koy jox. non sànq maa ngi dégg ngeen lim benn tur mais kooku. kooku dafa war a ñëw lekk avance loo ko. mu dellu TikTok bu mu mooy métier. bàyyi leen Tapha Mbeur. non non non du kees. bàyyi leen Tapha Mbeur bàyyi leen Tapha Mbeur agresseur la day bëree day xeex bàyyi leen Tapha Mbeur. kooku laa wax maa ngi ñoo bokk parcelle. d' accord kon xam nga bu baax. ok kon xam nga ko. voilà léegi léegi nga bëgg a jël sa jëmbër teg ko ci yoon Tapha wax moom ay supporteram lay ndax kii booy bi du moroom. billaahi. du ma benn affaire nga xam benn affaire. Hmm. bala muy daanu sept combat la fi ne sept victoire. ñan la daan booy booy bu ma bu ma tax a lim. waaw waaw daan na fi daan na fi caat caat bu Kër Masar daan na fi Karbala bu Kër Mbay Fall da booy. bu ma tax a lim waaw booy yooyu. dafa am booy Tarawaxa la fi jàpp bëreeg moom laa mujj yàgg. mais daan na ah Tarawaxa. waaw ah. waaw yow. Tarawaxa di nga. Tarawaxa xoolal palmarès bi. non. booy booy daan fin de carrière la ko daanee. d' accord d' accord léegi ba ci léegi Tafamba dina jël avance su Modou Fagane. ñeme wu ko Modou lu mu mën ci ci Tafamba. kooku Modou Modou Fagane kii lan la mën ci Tafamba. billaahi làmb yooyu noonu lu waaye wax rek suñu koy dugal ñun ñeme nañ ko dajale ñun ñëpp teg ko ci Modou Feugeul. yéen a ci risque nag. risque loolu amul lu ñuy risque kooku la ay. dafa wóorlu ngeen wóorlu ngeen Modou Feugeul à tel point que tey combat ma Tapha Gueye bu taxawoon ngeen parier wax ñu koy wax man dee fu Modou Feugeul la. ok daaw man de fu Modou sa Modou Feugeul. man mais gis nga li li nga jàkkaarloo xam nga li ngay wax nii gars seetaan instant bi te dinañ ko waxaat nag. dañ ko waxaat xaw ma déwén lay nekk mënu fëgg ne dafa mbër xaw ma après déwén lay nekk mais bés bu combat bi taxawee lu mën di xew gars yi danañ génnewaat vidéo bi garaawul wóolu nga sa mbër nga am dem rek wóolu nga sa mbër ko joxaat ama nag man li ma ci métti mooy depuis deux ans gars yi ko wax loolu dafa jaar mënul fexe ba sotti ah ama ah, Malika Gaye la day day foncé du ci côté ah, bi Modou kay

waaye nag bëgg mu wax da ngay sóob. te léeg-léeg laa lay conseillé bëgg mu wax da ngay sóob nag waru mu wax Boy ngay sóob nag. yow da nga bëgg a wax ne Ama Balde tey bu ñu ko doon avance mu fëgg la mi ngi nii mu daw. du ko jël jënte. xamul lu tax booy bii nii. gis nga Ama fi mu jaar. Ama gis nga boy bi non gis booy bi ku ko ciy jël na nga ko jël léegi. ok ku ci jël nga ko jël léegi. voilà parce que day màgg. day gën a am doole. day laxee xam-xam bi day gën a yomb. ok kon gars yi ñoo ko déglu. Euh, euh,